ñoo ngi ci suratu Taaha ci jeexital bi tolloog laaya téeméer ak fukk ak juróom fi sunu borom di wax ne wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasi walam najid lahu azman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na leen saar bi mi ngi bokk ca saar yi njëkk a wàcc yonent bi mi ngi dund ay mettit ci yéeféer yi ndax ñi ngi koy lor ñoo ngi mettital képp koo xamante ni gëm na yàlla àgg nañ ci mettital yonent bi ba embargo nañu ko moom ak waa fameem ñoom bàyyi taxam di abu di abi taalib ñu toog ay at wax dëgg yàlla seeni mbokki bopp embargo leen lépp ngir sayidna muhammad waaye yàlla mi nga xamal yonent bi sallallahu alayhi wa ne wëllëre gi nga xamante ni ñoom ñooñee wëllërante woon naa ak seeni ruux ca alamul arwaax nee na kon fàtte ko munte ñàkk léegi-léegi waaye fàtte googu na la wóor ne lu ñu donne ci seen maam aadama la kon bu fekkee ni itam la leen seeni yonent santoon ne leen am na kuy ñëw ba ci yonte yàlla Isaa waxoon na ko ne kii ñëw Ahmad de tudd ah fa tabaarakallaahu ñoom ñu fàtte ko buñ ko fàttee itam seen maam lañ ko donnee ndax amoon nañu maam bu tudd aadama di sun maam ñun ñëpp moo tax suñ borom ne wala xat wala ca dëgg ahit naa wala woon nañu ilaa aadama ak aadama wala xat ahit naa dëgg dénkoon nañu dénk sant ilaa aadama aadama mooy sant ko ne ko bu lekk garab gi dina indi histoire bi incha allah min qablu ceeg njëkk mooy la njëkk ñuy ñëw ñoom ñii la njëkk mu di ko lekk fa nasiya moom aadama mu fàtte wóllëre ba na najid fekkuñu lëhoo ci aadama azman ak dogu mbokki yi ay bu mata la lan la maam aadama fàtte mooy ndax dafa fàtte santaane yàlla yàlla ne ko bu lekk garab gi mooy yàlla li aljana di yaatu yaatu benn garab rek la ne ko bu lekk beneen bi itam benn sant benn tere rek la ko def mooy bu lekk garab gi kon aadama ndax dafa fàtte loolu aadama fàttewul santaane bi yàlla boobu ndax aadama mi ngi doon lekk ci yeneen garab yi xam nga aadama lan la fàtte incha allahu dina leen wax lan la aadama fàtte ci biir qissa bi adama fàttewul ndigalal yàlla fàttewul wóllëranteeg yàlla la mu fàtte moo di yàlla nee woon na ko inna hada aduwun laka wa li zawjika fala yuxrijannakuma min aljannati fatashqee inna laka an laa tajua fiha wala taaree wa innaka laa tasmau fiha wala tadxee fa waswasa ilayhi cheytaan nooneelu iblis la fàtte moo tax fa nasiya walam najid fekkuñu ci moom la wal ñeel ko azman ak dogu ndax dogu mooy tax nga li la yàlla tere nga mën a muñ ba doo ko utiliser loolu kon ñaar yooyu muy adam eh, dégg nga eh, eh, muy muy adamul azmi muy benn ak an nisyaan muy ñaar ñaar yi lu échec ñaar yooyu ko échecal bëri na doomu aadama seeni projet yu ñu dugg dara du ca sotti parce que ñaar yooyu lañu donné ca seen mam motam ni wala qad hidna naa wala rante won nañu sante dénk ila adama ci adama nek min qablu ci ndek nek fa waye nak mom fa nasiya wala najid lahu azman watu del ci tere bi ya rasulallah is ba nga xamanteni ni wax nañu lil malaikati ñeel malaaka usjudu sujootal len as sujud mooy toroxlu toroxlu len li adama ñeel adama fa sajadu ñu sujjoot ñom ñepp ila iblis andere iblis fa waaw abamu lank kandaral, lank baña a Legi léegi bi borom xam-xam wax nañ ci yu bere bere ndax adama qibla la won ñu sujjoot wutali ko waaye lu mëna xew rek nañu xam ki ne sujjoot leen koku moy yalla subhanahu wa taala kep ku sujjoot defandiko nga ndigalam ak na sujjóot sujjóotoo ka ko santaane maa daama yàlla la rek ku ko jëfandikoo jëfandikoo nga ndigalam ku ko bàyyi bàyyi nga ndigalam illaa iblis a ndere iblis iblis kon illaa ji iblis bëpp ci xeetu malaaka yi kon naa istisnaamun xatin la ndax jàngoon nañu ilaa iblisa kaana minal jinni fa fasaqa faa jooju faawu sababiya la lam bokkul ci xeetu malaaka yi moo mu mën lànk ndax malaaka yi laa yaasuuna ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruuna ñoom laa yaasuuna allaha ñoom mënu ñoo mooy yàlla waaw laa yaasuuna allaha ma amarahum te lam leen di sant ñoom kay wa yafaluuna maa yumaruuna kon iblis lànk na sunu borom ne bi iblas iblis lànkee ñu sànjee ko fa qul naa ñu wax yaa aadama yow aadama inna haza naka waa jiilee di iblis adduwun ab noon la lakka ñeel la yow wali zawjika ak sa soxna kon nag muy xawwa ak lu setoo ci yéen yàlla neewoon na ko kii de sab noon la yow ak sa soxna góorgóorlu leen ba ngeen bàyyi ko xel ak nooneelam ba fa laa yuxrijannakumaa bu mu leen génnee ñaar minal jannati ci aljana est-ce que fa tashqaya déedéet fa tashqa yow de bu boobaa da nga dund dund gu toskare allahu akbar gis nga alquran rek a neex yàlla xamaloon na maam aadama ne ko iblis sa noon la ne ko bàyyi xel ba bum la génnee aljana kon lay tax mu sabab luy sabab tax mu génne aljana kon ci iblis rek la mën a kon maam aadama moom de réerewul santaane bi yàlla réerewul tere yàlla waaye fàtte na nooneelu iblis ba iblis man ko jax-jaxal fa nasi suñu borom ne ko bis boo sàgganee ba iblis génnee leen yow de fa tashqa ñoom ñaar lay génne waaye kay tos toskere moom mooy góor ndax góor moom mooy kërti kërti rek moom moom coona coonay kër góor ko moom waaye aljanay kër jigéen ko moom kenn ku ne ak ci sa rôle su góor dang dangi dangee ak coonaan ba ñëw bu ñëwee war na am fu mu dal waaw waaw li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma moo tax sun borom ne ko فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيك إن لك نك نيل ليو آدم تي الجنة ألا تجوع تي خيت نيم يو خامنتني دانكو لك ألا تجوع بدو خيف ألا تجوع دو خيفت فيها تي الجنة ولا تعرى دو فرفلي يالا نينكو الجنة تروح تانغي أموف ndax torox tangé biir moy xif amolo lek lekk toroxtaange gi bitti modi rafle amolo sol sunu borom nee ko amul ci aljana inna laka alla tajua fiha toroxtaange birango biira ngoog wala tara toroxtaange gi kon aljana ken du fa toro muniko aljana wa annaka naka yow la tazmaw doo mar fiha ci aljana wala tadha do do fa ñak lu moy nacc du la fa lak moy do fa am eh, de nga eh, eh, tango do fa am tangoru bir do fa am tangoru bit tangoru bir moy waral aw mar ba ngay soxla ndox tangoru bitti moy amolo sol ba jant bi dila lak aljana amul ñaar yoyu waye xolal alquran ak ci balagha fi mu tollu waaw inna laka allaa tajua fiha wala taare wa annaka laa tasmau fiha wala tadaxa xam nga laa tajua xam nga xiif moom mook mar a ànd mu indi ca wet gam wala tasmau fiha waaye xam nga ni rafle mooy waral naaj lakk la moo tax laa ta la wala taara wala tadaxa wala taara ba ba ba addax ba ba fa tabaarakallah ba ba ngay lakk alquran rek lakk loolu sunu borom nee na lii laa wóolarante woon ak adama mais adama fanasiya nisyan bi mo waral bayiwul xel nonam ba fa waswasa ilayhi shaytan motax fa waswasa ilayhi shaytan fa waswasa jax jaxalna na ilayhi jëm ci moom a cheytaanu shaytan shaytan bi mu ñewé ci adama ndaysan adam ma nga nek ci aljana ju neex aljana joo xam ne doo xiif doo mar doo rafle loo bëgg a ngi fii lépp ngi fi xam ngeen ni foofu neex na de waaye maam aadama li nga xamante ne moom ngeen di gis léegi léegi ñuy toon jigéen ñi naan xawaa moo dem gis ab seetu xama ñu iblis moo wut ab seetu ñëw wan ko Adama mu xool na ko kii wan ko xawaa ni ko kii sa wujjilaak yooyu yëpp moom daal jigéen toñul kenn yàlla daal wax na ki tax ñu génn aljana kan la mooy fa waswasa ilayhi shaytan nee na fa waswasa jax-jaxal na ilayhi jëm ci maam aadama kan moo ko jax-jaxal mu ne ak shaytaanu iblis ma yàlla waxoon ne ko bàyyi ko xel sab noon la ana lan la ko jax-jaxal sun boroom dafa nee na mu ne ko ah yow aadama est-ce que xam nga yow yaa ngi dund dund gu neex ci aljana aadama ne ko ah waaw waaw mu ne ko est ce que xam nga doo fi xiif doo fi mar mu ne ko waaw waaw mu ne ko est ce que xam nga yàlla dalaa nar a génnee ci neexi neex bii nga nekk mu ne ko ah lu tax mu ne ko gis nga garab démb la ni bu ko lekk garab googu mooy garabu nguur mooy garabu biyal mooy boo ko lekkee am nga nguur gu dootul jeex waaye boo ko lekkee dootoo génn aljana kon nag doomu aadama dafa xir waye kon lumu xir xir rek xamal ni ca mamam la ko donné di adam ah lekkal lépp te bàyyi fi gi kon nak koku mo la lekkaloo googu xam nga buñ la joxone fukki plat tëj ben ne la plat yep man nga ko ubi lek waye plat be bu ko ubi lek ga dutu neex ci yow ndax xamo plat ba tëje lan la und lan mo nëkk ci bi motax fa waswasa ilayhi cheytaan mu ne ko adam ya adam hal adullu ndax duma la tegtal orienté la gindi la ala sajaratil xuldi ci sajarak biyal mooy garab goo xamante ne boo ko lekkee bi maanaa yaxludu man yaakulu minha ku ca lekk rek da ngay biyal dootoo dee wa mulkin garabu nguur goo xamante ne laa yeb laa nguur gi du jeex laa yef naa mooy nguur gu du du jeex ba abadan ah maam aadama xiram ndeysaan ne ko ah loolu kay ku ko am jël mu ne ko jëmal lekk ca garab gi maam aadama dem lekk moo tax fa akala ñoom ñaar mook xawaa ñu dem lekk ndax was wasa bi defu ko aadama rek yam ci ñoom ñaar ñëpp la def waswasa bi ndax alquran dégg ngeen ko mu wax ko dégg nga ndax lan la wax dafa ne fa waswasa lahuma shaytaan kon waswasa bi ñoom ñaar ñëpp la ko def kenn ku ne dem lekk amma jëmi kee dañ kaa xoj ak kee daa jàll ak yooyu moom eh, ngeen gëstu ko ca ña nga xamante ne bindi nañu ko maam Adama ndeysaan Iblis daf ko nax yàlla xamaloon na ko ndax moom waroon na indi xelam moom maam aadama li tax yàlla dégraté Iblis mooy kan mooy mooy ki nga xamante ni bi yàlla ne malaaka yépp sujootal leen ko mooy ka lànkoon kon kooku bu ñëwee di ko conseiller tey kon maam aadama waroon na bàyyi xel ki koy conseiller mooy ki ko lànkaloon démb ba yàlla dégradé beneen bi Iblis lim kay sant di ko ko conseiller mooy lan mooy sajaratul xuld sajara boo xamante ni boo ko lekkee doo dee sajara boo xamante ni boo ko lekkee am nguur gu duutul folleeku pourtant mam adam na nako laaj ne ko mais yow Iblis xana du yow ya doon wax ne anzirni ila yom yub'asu muñal ma ba ba dekk ba yàlla lànk ne ko fa innaka minal munzarina ilaa yawmil waqtil ma'lum lan mo teye kon mom Iblis bim xame garab go xamne ne ku ko lekk doo dee lan mo teye won mu dem lek ko mom Iblis ndax mo la ko gëna bëgg yàlla neena lolu la Adama fàtte motax fa akala bañu lekke rek fa badat fa badat fa ca saasa badat dégg nga ah, ah, badat daal di feeñ lahuma ñeel ñoom ñaar saw aatuhuma seeni awra ak saw a mooy al awra awra mooy fii ndox di tuuroo ak fi ñam di génn loolu mooy awra yéen a ngi dégg ci alquran kon aljana fii man ngeen a xam ni aljana aljana la fa nekk moo di ñam yu yàlla di servir di ko joxe ñam yu yàlla di servir di ko joxe loolu déchet du ci am mooy euh, lu lu nit di lu lu baaxul ci yaram ba di génn di nekk ndox lu baaxul ci yaram ba di génn di nekk dugub amu ca looloo tax ba ñuy lekk yeneen garab ya nga xamante ne yàlla terewu leen ko booba ñoom xamuñu sax ne awra am na ndax soxlawuñ di xam ne awra am na pourtant fi awra nekk la fay génn bët amna na lu ciy génn bakkan am na lu ciy génn waaye foofee la fay génn xet gi mu am ba nit bëggul ku gis looloo tax ñu tuddee ko awra yàlla dafa def doomu aadama dafa xir gis nga am nga fas am nga jur sa gétt gétt gi mais da ngay dugg bu dee fas wi nga suqi ko bu dee gétt gi nga rado ko te pourtant la fa tuur xet ga du la sonal xam nga lu parce que ñoom dañuy lekk ci xarisa mooy euh, euh, fas wi walla xar mi boo ko joxee ngooñ mu lekk bu suuree mënoo fexe ba lekkaat benn ngooñ fas wi boo ko joxee dugub ba mu suur walla mbaam mi nga jox ko mbopp ba mu suur boo ko doon dóor ba ba muy dee du tax mu lekkaat benn ngooñ waaye doomu aadama mooy lekk ba suur ah yootu tufale kaasu bisaab yoo tufale kaasu dinjeer yoo tufale kaasu nga xool ceebu jën bi rek li muy composé nga xamante ne ceebu jën bi lañ ca def lañ ci def daqaar def ca netetu def ca suul xam naa suul mooy netetu def ca bëgg loo ne doomu aadama bëgg ko lekk looloo waral toilette am ah fa tabarakallahu moo tax wa nag wa di sori kër ga ndax li muy dajale moo bëri doomu aadama day lekk ci bëgg-bëgg bànneex waaye jur day lekk ci xarisa moo tax lay génn ca moom ñaari du du sonal kenn moo tax suñu borom ne fa badat daal di feeñ lahuma ñeen ñoom ñaar saw aatuhuma seeni awra ndax lekk nañ lu ñu leen doon tere kon soxla nañu barab boobu kon falaa bëgg mu génn moo tax ndeysaan waxta fiqaa ñu commencé ñoom ñaar yax si faani di taf di taf ale de nga ay ay ay ay ay xop ay xop yo xamantene min waraqil janna mi ngi tukke ci xob yi garab ya nek ci aljana alayhi ma sen kaw pour mu sutural len kon lolu njàngat la sunu borom ne wa asee adam rabbahu faghawe ndaysan mak ñi firikat yi nu ne duggee nañu ko farak ndax ormal adama ndax ku ma dama yonentou bi yàlla la te muy sunu mam bëgguñu jël al isyaan ne yonent du du du mooy waaw sunu boroom ne wa asa juuyit wa dégg nga jàdd na wa asa mooy na ndigal mooy na ndigal aadamu aadamu ndigalal kan rabbahoo boroomam fa xawaa mu ci yoon woo xamante sànku na ca lam doon wut ndax lam doon wut mooy sajaratul xuldi wa mulkin wax dëgg yàlla amu ko léegi mooy ndigalal boroomam léegi nag bu mu la jaaxal ndax aadama jamono boobu nekkagul woon yonent nekkagul woon yonent booba xale la woon booba sunu nga xamante ni yàlla ma ngi ko def ca di ko préparer pour mu wàcc kon nag su ko defee boo gisee benn waay buy ñaxtu naan cëy àdduna bi dafa metti en tàngoor wi maam aadama daal wax dëgg yàlla waru woon lekk garab ba ndax ñu continuer nekk ci aljana dañ nan ko yow de da nga delu ci watul ci alquran xam yàlla bindul won adama pour aljana mu continuer fa mais daf ko bindon pour souf ndax dafa ne won inni ja'ilun fil ardi khalifa قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم ها أه؟ su ko defee kon aadama bind ñu ko woon pour aljana mais dañ ko fa doon jaar benn séminaire la woon benn stage la woon yàlla di ko xamal ne ko yow yaa ngi yaa yow yow laa bëgg a préparé pour nga nekk sama xalifa ci kaw suuf waaye maa ngi lay bàyyiloo xel ci ne am wutal naa la noon noon boo xamante ni moo yées ci noon te muy iblis te finto ni liggéeyam bépp mooy fexe ba noo jàddee rek la aqudanna lahum siraataka mustaqim la waxoon kon iblis képp ku nekk ci yoonu ndëng ndëng yi iblis amul ci yow soxla iblis noonu ki nekk ci yoon wu jub la yàlla xamaloon na ko aadama pour mu préparé balaa wàcc ci suuf looloo waraloon àjjana jooju waaye nekkul woon àjjanay biyel ndax yàlla programmé woon na ci moom ay yonent war nañoo wàcc yàlla programmé woon na ci moom war naa am sët bu tudd Seydina Muhammad te loolu bu nekkul ci suuf loolu du am kon yàlla bindu loon aadama pour aljana daf ko doon fa doon jaare la pour xamal ko iblis la mu capable pour soog ko wàcce ci kaw suuf def ko xalifaam moo tax buur bi nee na wa ase faxawee réer na ci li mu doon sàkku muy sajaratul xuldi wa mulkin summa topp iji tabaahu tànn na ko kon nga xam ne marxala isyaan bi dafa am marxala boobu yàlla wan na ko gannaaw bi mu ko wanee gannaaw la ko tappal garaatu nubuwaam mooy ba isyaan bi am ak nisyaan bi di am booba nekkagul nubuwa moo tax summa topp après iji tabaahu tànn na ko moom yàlla rabbuhu boromam tànn na ko jegel ko boppam fa taaba ba nangul ko tuub jéggal ko la nga xamante ni moom la defoon ma nga doon wax naan rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin yàlla nee na jéggal naa la kon aadama bi muy def isyaan bi booba nekkagul yonent comme Seydina Moussa bi muy rey toggkatu Firawna bi ci njuumte nekkagul yonent waaye ba mu nekkee yonent yàlla jéggal na ko tànn ko def ko yonent aadama bi muy def lii nekkagul yonent su majtabaahu topp moom yàlla mu tànn ko fa talaqee aadama min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim moo tax su majtabaahu rabbuhu fa taaba alayhi moom yàlla mu jéggal ko wahadaa mu gindi ko wahadaa mu gindi ko jëme ko ci mu sax ci tuubam léegi nag suñ borom ne comme Adama yow fàtte nga aadama amoo ak dogu léegi wàcc leen qaala suñ borom ne ihbiqaa wàcc leen yéen ñaar aadama ak xawaa ak lañu ñu ëmb ci ay sét min ha tukkee ci aljana jami an mboole seen ak iblis wàcc leen léegi nag baadukum lenn ci yéen adduwun ay noon la doon li baadi ñeel lenn ci yéen aadama su wàccee iblis wàcc léegi aadama su wàccee ak ay setam dina am ñu ragal yàlla di topp yàlla dina ci am ñoo xam ne du ñu ragal yàlla dañuy mooy yàlla kon képp ko ci topp yàlla ragal yàlla xam nga ni kooku noonu iblis ngay doon wala déet waaye itam iblis sab noon lay doon ndax la aqudanna lahum siraataka almustaqim yoon wi ni coow jub ka ca jaar kooku la iblis soxla kooku nekk noonu iblis kooku la iblis di nekk noonam waaye ka nekk ci ñàll yi kooku iblis nee na ma nga ca yoon wa ma bëgg kooku iblis soxlawul di noonante ak yow kon ba'dukum li ba'din aduw waaye itam doomu aadama yi seen biir seeni set ñoom itam dañuy nekk noone léegi-léegi ay noone ci ci mbir yi waaye suñu borom nee na comme noonu am na fi kon léegi lii régler problème bi du bàyyi ko ci xeetu doomu aadama ndax noonu du du noonu iblis la waaye du bàyyi ko ci iblis ndax noonu aadama la yàlla nee na man maa leen di atte li leen di atte liy bàyyi ci man la lan lay bàyyi ko ci man nag képp ku ca tege yaa nekk ci yoonu njub yow yaay dominer ëllëg yow yaay gagné loo tax suñ borom ne fa imma yaatiyannakum dañoo amoon in acharte ya ñu idgaam ko ca maa maa ji dafa nekk zaidi tawkid fa imma yaatiyannakum jëm dikkalat na leen hudan yonent wala hudan alquran hudan ay santaane yo xamantene dana sabab seen njub minni tukke ci man majaz mursal ala bi sababiyya fa man képp koo xamante ne ittabaa topp sama alquran fala yabdil du sànku ci aduna wut alakhirah wala yashqa du takhidi alakhirah wayo man kep ko xamantene arada deduna arada bayina fa lank baña topato an zikri wala sama alquran ji fa inna lahu nako ko nako maishatan ak dundu dan kan gu khat waaw dankan maishatan danka sunu borom nee na soo bàyyee wan gannaaw alquran wan gannaaw sama njub gi wan gannaaw samay santaane nee na nekkal sax milliardaire mais dund gu naqari ngay dund waaye doonte ku ñàkk nga tànk yaa ngi nekk ci wetu yàlla sunu borom nee na dund gu tranquille gu neex ngay dund ndax bo amul da nga xamne amna ku nek sawet muy sut borom bo xamne mo la bind te borom bobu dula bàyyi ndax wa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib motax tax fa inna lahu maishatan danka ci aduna maishatan danka ci bammel wa naxsuruhu dañu fang ko yawmal qiyam yawmal qiyamati bisu su ba ama mu nek ko silmaxa lan moo nekk tax ama te nga jàngoon ci alquran ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها sun borom neena yéféeri ñu dem ba mu yàgg ñu jàkkaaloog safaras jahannama mu leer leen ni ñoom dañu tàbbi jahannama tey nan nga mën a jàngaatee sun borom ne bu leen di fang day aama kon da ngay wax ne bis bu ñu génnee seeni i bàmmeel wépp yoon wu ñu mën a jaar yoon wu leen di mën a musal yàlla ne damay silmaxaal leen yoon yi ñuy jaar pour musal leen du ñu gis wenn yoon wu leen mën a musal ba mooy dañuy silmaxa ci lu leen di musal waaye safaras jahannama kay war a al mujrimuna naara fa zannu annahum waaqi'uha bu ñu àggee safaras jahannama dañ ko naan jàkk moo tax kon wa naxshur dañuy fang yamal qiyaamati fi si penc ba daañ ko fang moom i wan gannaaw alquran wan gannaaw njubug yàlla ama mu silmaxa ci lépp lu koy musal silmaxa ci wépp yoon wu muy jaar ba ci su ko defee nag ndeysaan xaala day wax yàlla ne ko ya rabbi sama borom xanaatee la ko nangul li ma xashartani lan moo tax nga fang ma lu tax nga fang ma ama ma silmaxa wa ko qad kuntu te dëgg nekkoon na ca àdduna ak ba may dekki basiran doon gis xaala sun borom ne mi daal kazalika ndax atat ka dala dikalon ayatuna sunuy keman yi tegtale sunu katan wa fi shay'in wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid nak imam shafii waxe muy ay al ayat al kawniya ayatuna sunu keman ni ñu dëgërale won suñu yonent pour ñu wax dëggal ñi suñu yonent lañu ayatuna sunu qur'an ji fanasitaha nga ne ko fi lànk ne ko fa waccet lànk bañ ko gëm kon nak wa kazalika comme ni nga fàtte woon ndax fàtte mooy waral bàyyi kon ni nga bàyyee woon alquran lànk bañ ko gëm lànk bañ ko jëfandikoo ci àdduna kon alyoma tey jii alaxira tunsa def na la bàyyi ci loraange dees na la bàyyi te ba doo am ci la may séddale ci ay xéewali aljana la may séddale ci xéewali teraanga danaa la ca fàtte ndax ba ma leen ëndalee teraangay alquran ci àdduna yow da nga ko fa ne ñu ko bàyyi ko fa mel ne ko fàtte sunu borom nee na wa kazalika naka ma ma fayee ki dëddu alquran noonee najzi ba tey lay fayee man képp koo xamante ne asrafa ëppal na bay bokkaaleeg yàlla wala mu yumin nangu la gëm bi ayat rabbihi kéemaani boromam sunu borom nee na bul jàpp ni mbugalum aduna ci mbugalum aduna rek la yam wala azabul axirati di ñaanal ne mbugalu alaxira wala azabul axirati wala bok la ngi nek ibtidaiya az mbugaluk alaxira de ashaddu mo gëna tar mbugal mi xew ci aduna ak mbugal gi nek ci bammel ndax mbugalu aduna lum yag yag dina ma sa jeex wala yow nga jeex ba fi mbugal gi bu de bi mbugalu bammel lum yag yag mbugalu bammel du sax ndax dekki amna na te mbugalu alaxira dafa sax ashaddu wa abqa sunu borom nee na loolu doy na njàngat mu ne afalam yahdi lahum kama ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim léegi nag yéeféeri màkka ña nga ña ngay wax ne comme saalixu amoon na giléem ba ko aw xeetam sonnalee ci wut giléem wut kéemaan dafa jàkkaarloog montagne bi te ñoom uh, aw xeetam dañ ko ne woon waxal montagne bi na jur giléem te giléem gi muy jur mooy giléem gi na ëm ba pare fekk dafa ëmbaale ku ma sa gis loolu na judd tey te na xeer yu te bu ko xeer juree buy judd day ëmbaale yàlla defal ko ko waaw waaw man koy wax te suratu wa shamsi rek bi gën a gàtt naaqatallaahi wa suqyaaha waaw waaw كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها dañu mujjee rek mooy dañ ko mujj daal di ñu ni yonent Yàlla Moussa comme amoon naw yat ah amoon na ay kéemaan lan moo tee Seydina Mouhamad indi kéemaan yàlla di wax ak ñoom ne leen kéemaan bu ëpp doole kéemaanu alquran amul ndax qul la in ijtamaati linsu wal jinnu ala an yaatu bima ala an yaatu bi misli hada alquran laa yaatuuna bi misli walaw kaana baadum li baadin zahira alquran bii nga xam ni yonent bu manti doon sa kéemaan jeex na alquran moo ñu la koy nettali alquran bii nga xamante ni li jiitu woon lépp indi na ko lépp lu al àdduna ba àdduna tukki lu ñu dund indi na ko lay xew yomal qiyaam indi na ko kon nag kuy wut kéemaan boo jotee alquran war nga mën a yéemu yéen kat jàng ngeen arab xam ngeen liñ naan an nasr wa nazm xam ngeen jàng ngeen règle yi ak uslub yi ñu ciy jaar yépp waaye gis ngeen balaaxa bi alquran am ak fasaxaam ak ni mu mel wàcc ci làmmiñu koo xamante ni yéen de wóor na leen ni jàngul loolu war na leen a doy kéemaan alquran boo xamante ni wax dëgg yàlla amu ci lenn loo xamante ni neen la dikkee ko ci benn côté xoolal ku toll na Seydina Muhammad fa tabaarakallaahu lu tolloog saaru lëmm wàcc ci moom xool leen lu tolloog suratu kahfi kum wàcc ci yow nga daal di wax ne bind leen ko léegi ñu daal di koy bind julli jot nga tarit nanga ko waxee woon mu dikkaat noonu loolu de war naa doy kéemaan masalan walillaahi masala wala ala yéen ak amul benn doomu aadama boo xam ne danga ko mën a enregistré 10 minutes ne ko waxal lu la neex ba ma 10 minutes nga denc loolu ba ngoon jot wala nga denc ko weer wax waxuma weer sax bu paree nga ne ko jaaraat ci fala budde mu am ay juyaloo ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافا كثيرا وخما اختلاف يقلل واختلافا كثيرا صح لنجي فيه كون نك سون بروم ني نيوم ني لاج كيمان يوننتي بي دانيو خلول واي القران بي نيك سي سين لوخو دوينا دين سك كيمان موتا سون بروم ني افلام يهدي ندخ دافا ليرالو افلام يهدي ندخ دافا غينديول افلام يهدي ندخ دافا بيرول افلام يهدي ندخ دافا تكتلول lahum ñel leen ñoom yéeféeri makka ne leen kam baraana ahlak naa torop bu ñu alakee qablahum la leen jiitu min al quruuni ci ay xeet ndax la taxoon ma alak leen mooy dañoo weddi woon seen i yonent te ñoom ñii ñi ngi noonu nañu ñele wedde woon seen i yonent ba ma alak leen ñoom nu ko raw la ñu weddee seen yonent te alakaguma leen et pourtant ñoom ñooy voyager xaala kawnihim yamsuuna ña ngay dox di voyager fi di dox ci seen i voyage bu ñu dem rixlata chitaa yi wa sayif fi masakinihim di jaar ca seen kër ya woon itibaaru maakaana ca seen kër ya woon seen dëkkuwaay ya woon dëkkuwaayu samuud yaak aad ya dara nekkatu fa sun borom nee na inna la ayatin naka ay kéemaan yuy doy sëkk lu ñuy waaroo li uli nuha ñeel borom xel yi fii zalika war na doy ci loolu sëkk nañ ko doyloo sunu borom ne mbir mi li leen musal moo di walaw laa kalimatun sabaqat min rabbika la kaana lizaman wa ajalun musamman walaw laa kalimatun nga baada lawla galiban xasfu lxabari xatmun wa fi nafsi yaminin kaza staqar loolu ibnu malik wax moo tax mu ni walaw laa kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamman kon de mbir ma la kaana lizaman sunu borom nee na budul woon ak kaddu gama waxoon وكلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام كلام قد يؤم كلمة برم وخونه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون sun borom mo waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa xet bokku la xeet yu njëkk yi ñoom nga nekk rahmatan lil alamina te yéeféer ci alamina la ñu kon taajilul azab bi nekk nga rahmati ñoom ba du ko def yàlla moo ne moo ne woon tànk yaa ci seen biir du ma leen bugal fi nekkatul tànk ñi ngi def istighfar du ma leen kon wala wala kalimatun sabaqat su dul kaddu gu jiitu waa ajalun ak dikk musamman bu ñu lim bu bu ñu tudd ne ci la seen mbugal di ñëw kon de la kaana dana nekk alkane ga lisaaman di yey ci ñoom ci àdduna dama leen di faagaagal mu jeex ndax yaa gën ci yonent yi kon ku la weddi moo yées ci ñuy weddi ci yonent yi sunu borom nee na yaa rasulallah muñal muñal ah muñ kat moo fi sës yow ñoo xam ne ñoo ngi lay weddi te nee nga leen am ngeen assurance ne duma leen mbugal loolu est-ce que duñ continuer seen weddi ak seeni i loraange aha kay dañuy continuer seen loraange moo tax yàlla ne ko kon fas biir muñal fas biir saxal ci muñ alaama la nga xamante ni yaquluuna ña ngi koy wax lan la ñuy wax léegi-léegi ñu ne ko eh fenkat bi léegi-léegi ñu ne ko eh njabarkat bi ndax teqale nga nit ñi ak seen i wayjur léegi-léegi ñu wax ko wax ak jël alquran ne moo ko kereel boppam alquran ñu ne asaatul la wali na kon kay ñoom la ñuy wax bëri na léegi léegi ñu wax a wax a wax a wax sax fa tabarakallah waaye yàlla nee na ko rek fasbir ala ma yaqulun loo mënti dégg yow muñal rek saxal ci muñ gi wa sabbih te nga bakk di sabbaal bi xam di rabbika lamboo cantu sa boroom xàlla xaala kawnika bi xam di rabbika mooy xaala kawnika ngay làmboo cant sa borom ndax jaar ak ma juróor dina nekk xaal fa xaraja ala qawmihi fi zinati xaala kawnihi fi zinati mag ñi dañ koy tënk qabla tuluu shamsi la jiitu jant bi fenk del bàkk yàlla del sant yàlla wa qabla xurubiha la njëkk jant bi so del bàkk yàlla del kañ yàlla wa min ana illayli ay xaaj ci guddi i jam u ina mooy ay ajza ay xaaj ci guddi dee ci sant yàlla dee ci bàkk yàlla fa sabbih bàkkal yàlla wa atrafa nahaari ak cati bëccëg yi bàkkal yàlla del sant yàlla kon kay mooy waxtu yépp del sant yàlla del bàkk yàlla boo demee ci Qurtubi nga ñëw itam ci Jalaaluddin al Mahalli nee na waxtu julli juróom daañ ko génnee foofu bu ne wasabbih bi hamdi rabbika mooy na nga julli làmboog sant sa borom ci biir julli ga qabla tuluu shamsi jullig suba dugg wa qabla gurubiha jullig tàkkusaan dugg wa min ana illayl mooy waxtu yi guddi waaye fa sabbih wa min ana illayli mu jul mu dugal julli timis dugal julli gee wa atrafa nahaari mooy peti bëccëg jant bi bu fenkee ba àgg digg asamaan boo digg asamaan muy zawaal boobooy benn pet bi bu jë mu jël beneen côté bi ba àgg jant bi so kon atrafa nahaar jullik tisbaar génn fi bu dee ci xurtu bi atrafa nahaari ca la génnee jullik tisbaar mooy ba nekk zawal waaye ca la génnee itam jullik eh, timis su ko defee def ko la allaka tarda yàlla neena na santuma la nga sàbbaal ma santuma la nga jaamuma pour ma kontaan mais pour yow nga kontaan ndax li ngay jaamu lépp bis boo gisee payoor ga njariñ li ci yow lay dellu yow yaay bég ci tuyaaba jamala fay moo tax la àllaka ndax le yow tarda waaye ngeen la àlla du daw daw waayam ci yàlla la àllaka kon dee yow tarda daa kontaan ci li ma lay fay ëllëg hmm. sunu borom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag yéeféer yi gis nga li ma leen xéewale ci àdduna nee na bu ci teg sa bët man yàlla li ma la joxe ko gën ndax lu ñu mën a am ci àdduna mi ngi mel ne fleur fleur de gis ngeen ni mu gaaw a ni mu gaaw a laxee gaaw ko woowee li ñu am ci àdduna lépp ci daraja li ñu am ci àdduna lépp ci ay alal li ñu am ci àdduna lépp ci nguur xamal ni du yàgg ñoom ñu dem ba ko fi wala bokk loolee dem ba leen fi kon kay zahratu xayaati dunia la moo tax mu ne ko wala tamuddanna wala tamuddanna aynayka wala tamuddanna bul di tàllal aynayka sa ñaari bët bi maanaa yoqamtiku di xool bi maanaa jël sa bët di ko xool ilaa ma jëm ca la nga xamante ne mattaana xéewale nañu bii ca loolee xéewale azwaajan ay xeet ay xeeti xéewal azwaajan ay xeeti xéewal minhum ah zahratal xayaati dunya waaw kii mu nekk ay fleur yi dund gu jegan gee jeex wala dund gu yées gi di taaru àdduna wa dégg nga di lu ñuy taarloo ci àdduna rek zahrata ji dafa am ñu wax ne dafa yore maana aata mu nekk mafulu thani waaye lu mën a xew rek zahratal xayaati dunya yàlla nee na yow rasulallah yi loo gis ma bëri ci ñoom dama leen ko jox li naftinahum ngir ma nattu leen fii ca loolee waaw ma nattu leen ci rek bu ñu bewee rek mu mu mu nga mu nekk istidraaj du may gën a métti ndax wa bi rabbika sa wërsëgu borom muy aljana wa bi rabbika sa wërsëgu borom muy imaan bi ak jaamu yëgga yàlla gi ñu la jox xayrun moo gën moos lañ leen jox ñoom ci àdduna lu mu mën ci doon waaye wa abqa moom moo rek kay des ndax loo mën a jëfandikoo ci wàllu yàlla bu yemal qiyaamee payoor dafay sax dàkk xam nga la laa leen sant yow Seydina Muhammad mbay ci sa weew tànk waamur santal ahlaka sa ñooñ mooy sa waa kër sa waa néeg bi salaati ci julli après nga soog a dem ci sa waa kër après nga doog a dem ci waa mbedd mi soog a dem ci waa dëkk bi yëpp was waamur santal ahlaka sa ñooñ bi salaati julli was tabir te nga muñ saxal ci muñ alayha ci julli ndax julli dafa metti léeg-léeg nga nekk ci tukki bu neex léeg-léeg nga nekk ci liggéey bu neex léeg-léeg ngay seetaan film bu neex léeg-léeg nga nekk ci nelaw yu neex waaye nee na bu julli jotee nga dagg loolu jël sa temps dem julli ji fala budda mu ànd ak assabu wan wastabir aleyha wastabir aleyha la nasaluka togguñu la ñun yàlla ci sunu xadara di la fi laaj risqan wërsëg sunu xadara déedéet ñu fi kenn wërsëg ndax soxla wuñ ko ñun yàlla ñun ñooy euh, ñun ñooy tudd turu muxni yàlla bokk na ci ay turam muxuni mooy aji woom la ji boo ko di chiffré mi ngi lay jox mille looloo tax bu feebar daan am wala jafeñ-jafeñ am moom leetaram yi moom Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu ñoom bind yëpp boo xoolee leetaram yi li muy sant ay taalibeem mooy fexe leen a sax ci téeméeri salatul fatih ak junni latif waaw ndax ñaar bunti rek a fi nekk muy lutfullah muy muy muy yërmaan muy muy muy yàlla parce que al lutf li firi modi ak dëppale may firi at tawfiq ndax gis mbir la la tay jotale lépp nek ci sa loxo taxul nga jot ca lay tax nga jot ca lol moy al lutf moy at tawfiq yàlla xiif bi ci dess yonent bi moy comme moy rahmat moy rahma rahmatul lil alamin moy rahmatul alamin ah koku itam moo tax boo jëlee téeméer bi comme bo jele allah 66 la wahab 14 la hadi vela bo len di chiffré mu jox la 100 motax temer salatul fatiha junni laqif baxna ci fii ñu toll febar bu amé loolu la cheikh daan joxe xat-xat mom la daan joxe tar-tar néna sax leen ci témir salaatu faati ak junni latif kep ko xamantene man nako tejé ñaanam gogu mu daan joxe itam bo démé ci kashful hijab téré bu am solo bobu sukéri bi nga xamantene seigne babakar man ma koy wax ci qasida bobu di matlaba قد انقطع للعبد عنك المجامع وبالله وبالله والأضرار أنت جامع ma ngay waxte biir naan yaa saaxi laa taqsuran baxtan bi fadlihi bi kutbin tara kashfa alxijaabi turaajiu kashfa alxijaab boobu boo fa demee eh, ma nga fay wax ñaan gi allahumma sakkin sadmata qahramanil jabaruuti bi altaafika alxafiyati الواردة من باب الملكوت حتى نتشبث بأضيال لطفك ونعتسم بك من إنزال قدرتك يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة يا ذا الجلال والإكرام ñaan googu daana ko def ci lu yeme naka jamono bi bu tollee ku man di ñaan di ñaan ndax mbir yu bu ñaari waajtaay la ben waajtaay bi bu bitti bi moy déglu liñu santane médecin yi santaane ko nga jël matuwaay ya bi ci dess nak sa digënté sa borom moy nga ñaan yàlla yàlla musal la ci ndax mom moy musabibul asbab jëfandikul asbab yi ba pare dal di nak wëru ci yàlla motax mu ni nahnu narzuquka togguñu la jëf suñ xadara togguñu la wërsek la nasaluka rizqan fi ndax ñun yàlla nahnu ñun narzuquka ñolay wërsëgal والعاقبة الجنة والعاقبة مجد رفت جه للتقوى نيالنا ويرقل نيالة نيوم نيوك إمام نيوم يفيري دا وقالو نيوكي وخنان مو لولا ياتينا مو أنا لتيمو أندلت نيو مو محمد بآية كيمان من ربه ببايكو تي بورامام ننكو ساكو تي موم كم نكون مرمي يونين تمي أنديوان يالنا أولم تأتيهم مو نيوم دنيو خلو نخدلنا ديكلوك موس bayinatun aw lay wu leer nañ bayyinatun leeraluk maa la nga xamante fi suxufi ma nga ca téere ya al ula yu njëkk ya lamb na seen i maana lamb seen anba lamb seen histoire yàlla nee walaw anna ahlaknaahum bu fekkoon ñun yàlla alak nañu leen ñoom waa màkka gi ak ñi nga xamante weddi nañu la bi azabin ci mbugal min qablihi la njëkk ngay dikk yow sayidna muhammad kon bu yawmal qiyaamee daañu rëyu làmmiñ la qaalu daañu wax yawmal qiyaam naa rabbana yow rabbana yow sun borom law laa arsalta ana lu teewoon nga yónni ilaynaa jëm ci ñun yebal rasulan ndaw su ko defee boo ko yebaloon de fa nattabia ñu topp ayatika say say say ndigal say kéemaan ya nga xamante ne say tere say say ndigal waaw ñu topp say yonent say kéemaan ya fenc seen yonent min qable an nadilla la njëkk ñuy torox ci yemal qiyaam gi wa naxza ñu ñuy gàcceel di ñu wàcc ca jahannama kon nga gis ne ñaar mooy doomu aadama soxlawul woon yàlla di yónni yonent pour mu xam yàlla mooy mën na xam yàlla ci li yàlla bind mu xam kan mooy yàlla waaye nag bu boobaa santaane yàlla attere yàlla bëgg-bëgg yàlla lii laa bëgg jaar leen fi jóge bu leen jaar fi loolu bu yebalul woon yonent mënuñu ko xam yonent moom mooy jëlee ci yàlla yàlla wax ko ay bëgg-bëgg mu orienté ñi moo tax wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim muy hidayatu hidayatu dilala wal irshad waaye hidayatu tawfiq kooku moom ci ba yàlla la bàyyi ko la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon nag sun borom mi ngi wax yonent bi ne dafa mel ne ñi la weddi ay noon ngeen te noonu nag ak moroomu noonam heure bu ne mi ngi koy ëkku rek naan di xaar musiba bi wàcc ci kawam comme nag yow yaa ngi xaar a ah ñoom ñi ngi xaar léegi yàlla nee na man may àtte dinaa tranché moo tax mu ne xul waxal ne leen rek kullun kun doon ci ñun ak yéen comme ay noon lañu ah mutarabbisun mu ngi muññandiku di xool ana moroomam ji lan mooy wàcc ci kawam ak moom fi mu mujj yàlla ne fatarabbasu muññandiku leen fa sa taalamuuna bu yemal qiyaam jotee bañ ni yéen ñiy dugg aljana jaar leen côté droite ñëpp dugg aljana ñiy dugg safara jaar leen côté gauche jëm safara nee na bu boobaa daa ñu xam kan moo nekkoon ci dëgg moo tax mu ne fa tarabasu xaar leen fa sa taalamuna salxan ngeen a xam ci yawmal qiyaam man ana kan man ana ñan asxaabu siraati ñooy waa yoon wa asawi wu ni kocci wa wu jub waaye yoon mën naa jub ba pare mais kenn du ca tege mu ni wa man ak ana kan moo tege ci yoonu jub ba ba gindi ko fa tabaarakallaahu ndax ñun lay doon wala yéen ah fi la saar bi yam di suratu taaha suratu taaha waxoon naa leen saaru màkk la mooy sël saar bu waa aljana yonent bi ne na waa aljana dañ koy jàng waaw daañu ko dégg ca aljana saar bi saar la boo xamante ni bëri ay kéemaan yu ci nekk saar la boo xamante ni mag ñi daan nañ ko musloo mooy dañ daan bind suur saar bi ba mu jeex yaatal toogi tooxee bind seen tur ci biir wut ndab lu bees fa tabaarakallahu daan ko bu ñu paree jël ndab li saraxe ko léegi léegi bu fekkee ni eh, eh, eh, ñu ko man ay temps daanañ ko defandikoo mooy gas ba mu xaw a xóot noonu rek nga jël taxaw ci ndab li sotti koo ko daal di génn kàmb gi daal di suul paan baag lepp suul ko mag ñi daan nañ ko jëfëndiko ci loola ci jëfëndiko alquran ci leen di seen tektal la woon kon nak su ko defee lii mooy li sobon yalla pour ñu barké ko ci wéru koor bi ngir mu nekk jang bo xamni ne di koor gi dina nekk lu ñuy nafaraat ba geneen koor gi jeex su ko defee nag tey la tafsir bi inshallah taala dal di jublu ci yeneen xéeti jaamu yalla inshallah taala kon nak lepp lo xamanteni ci fukki fan ñenti yi def nañu ko fi yàlla yàlla nangul ñu ko diisale ko suñu mizanu hasanat lépp lu fi xew ci ay njumte yàlla yàlla jéggal ñu ko kon xana suko défé rek ñu daal di ñaan tëj ko allahuma arina alxaqa haqqan warzuqna war warzuqna tibaa wa arina batila batilan warzuqna jitnaba اللهم يا حي يا من نصبت له الحياة ولا منصوب لغيره مما نصبه إلى نفسه تعاظم سبحانك أسماؤك وتنزهت عن المسميات وتعاظم ذاتك للمثال والشريك والنظير والصاحبة والوزير فأنت الحق أبدا والصمد في حياتك العبدية فانبسطت الحياة من حياتك فأنت الباقي فلك البقاء الدائم بعد فناء المخلوقين وكما لك البقاء ولعبادك الفناء فأمرك يا إلهي نافذ وحكمك ليس له معاند فقد ذهبت الأف فقد ذهبت فقد زهرت الأنداد وانقمع الملحدون بوجود بقائك في ديم الحياة يا حي يا قيوم أسألك بهذه الحياة الأبدية أن تحيينا حياة موصولة بالنعم وأحينا من العالم حياة يكون بها مدد وسعة وأسعدنا بتوفيق من رقائق اسمك الحي القيوم وحفنا برقيقة من رقائق اسمك حتى تمهو عنا الشقاء وتدخلنا دائرة السعداء يمحو الله ما يشاء ويثرب يا حي يا قيوم يا من قامت السماوات يا من قيوميته قائمة بأهل السماوات والأرض في طولته بحق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من نصر ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أنا آمين بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب, فاستجاب لهم يستجب لنا يا رب كما استجبت لهم بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبق ناصر الحق على علي حق قدره سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين